ne xam nga bu dul woon lim ma woyé sama sama sët nee na la laa dégg ko ci ay plateau mu wax ko fa sama sët bobu euh, kon duma del sax ci ay waxam waye kon gannaaw sët lama jappé jàppee man ma tontu kon sama mam, léegi mo wax ak sama maam euh, kon euh, dana ko mën mamé ci benn côté mais gis nga ku mel mam joju ku nek ci benn combat mu ñak cee and da nga wara sante yalla bu baax <laughs> mhm. ñun li ñu doon naqari di ñu métti mooy moom mu ànd ci kombaa bi ànd ci loi bi boobaa danañ tiit lool waaye moom bu àndul ci loi bi dañuy kontaan lool xam nga lu tax gis nga bokk ci këru cëriñ sa mbokk yëpp di ay sëriñ yu nu naw jox leen cër respecté leen ci bàyyi ci maam ba ciy maamaat ñu jug di seeti seeti sa mbokk yooyu yëpp yow ñu tëb la fa neexut xam naa loolu bokk na ci li ko métti. Ah, waaye seetu woo leen ko lu tax seet woo leen ko. xëy na ma ne bokk na ci li ko métti xëy na. waaw lu tax seet woo leen waaw mu meloon na ñeneen ñi ñuy seeti rek ñu seeti ko ndax ñeneen ñi ñuy seeti kenn taxawu ci ne waruñoo wax dara góor jigéen yi mais ña ñuy seeti dañoo jàpp ne ñun li ñu metti li leen métti sax laay wax ndax ñoom ñoo ñu jiitu ci li nu métti nii ñu xam ne baaxul mu métti ni dañoo xam ne ñoom seeni maam ñi fi nekkoon bu ma tuddee ñaari kër doy na Touba ak Tivaouane mu yóbbaale ñëpp dañ doon bañ ngóor jigéen di ko xeex ndax yàllaa ko bañ rasulullah bañ ko moo tax ñun biñ jógee ñu dem seetalee leen ne seen maam yi lañ doon bañ gis nañ ne ñu ngi xëcc loola muy ñëw ci réew mi ñu jug seeti ñooñu waaye kii nga xam ne tey moo jóg wax lu mel nii jamono yi ñuy jug ne réforme warula am senegal ànd sàmm jikko yi jug tudd jamono yooyu collectif non à la franc-maçonnerie et à bi ñuy wax ne faramason maçon yi waruñoo ñëw senegal amal fi daje am nañ benn plateau mu woote fa direct ñu teg waxtaanu Cheikh El Hadj Abdoul muy wax ci loosu franc-maçon yi nekk fii ci Ndakaaru kii ngay wax nii tey moo woote direct ne El Hadj loolu muy wax noonu maîtriser ko ndax xamuñu luy xamul luy franc ñun mu attaqué ñu lu lu ko neexee ca jamono yooyu noonu li pour défendre ñan les francs waaw léegi ñun buñ jógee ci francs ya ne war a ñëw Sénégal taxaw ba réforme ba fomm ñu jógaat tey ci mbirum góor jigéen Ah, waaw léegi ka ñu attaqué woon ci mbirum franc-maçonnerie su ñëwaatee ànd ak ñun ne ñu ah li ngeen di xeex ci ngóor jigéen baax na dañuy tiit looloo ñu tiital moo tax seetiwuñ ko waaye jamono yiñ jugee départ di xeex ak franc-maçonnerie suñu encouragé woon jaajëfal nu ànd ak nun bu nuy jug moom la ñuy jëkk a seeti yu mel noonu nag léeg am na ñu muy métti Sénégal bëri na koo xam ne li tax muy attaqué ànd sàmm jikko yi wala di attaqué yenn combat da caa bokkut da caa fesut genn kilifa moo doon wax nag ne ñaar dafa am bëgg lu baax ak bëgg sa bopp du ñu benn mu ne bëgg lu baax lu baax la ñu def fu ñu ko mënti defee ku ko mënti def dalay neex da nga ànd loolu mooy bëgg lu baax bëgg sa bopp nag mooy lu baax lii ñu def ku ko mënti def ak fu ñu ko mënti defee yow defoo ko bokkoo ca loolu neexu la loolu bëgg sa bopp la mais du bëgg lu baax buñ dellusiwaatee nag ci wax ji daanaka yenn yu bari jarul a dellu si ci ay wax waaye benn wax ju simple gis nga bu fekkoon mag ñi ci réew mi yëpp waxuñ ci ngóor jigéen te yàllaa ko yonentam wax na ci doy na soxlawul mag ñi wax ci pour ñu taxaw ñun pour xeex ko ndax ay jullit lañu avant ñuy doon leneen te mënuñoo doon sax leneen lu génn jullit mais sunu borom mais aaxiru euh, zaman bi ñoom maa ngi ci jox rendez-vous mbokk yi danañ ci dellu si ci alxuraan rek ni mu teratee ngóor jigéen nga xam ne façon terme bu nekk tuddee na leen ko nit ñu ëppal nit ñu réer nit ñuy jalgati wax bon bon yi nga xamni ni mom moom ñoo ko njëkk def ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin yàlla mu ne yéen xaw lu bon li ngeen def kenn musu len ci jitu yàlla wacce mbugal ci sen kaw ba nopi ne xeer yama len duma won ñu jele ko ci safara sijjil wa ma hiya min adh-dhalimin bi baid xeer yi sori wul mi ngi fi ma tek su ngeen defate lu ni mel rek ma tek len lu jege lu teg lu toll ne la ma leen teg alquran la alxuraan waxu ci lu dul nettali histoire du dëgg amul alxuraan dafa wax histoire bi la xew wax mbugal gëm leen mbugal waaye tëkku leen wane bon bon yooyu noonu leen nuñ ko war a moytandikoo ak la mu jur rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñun bu fekkoon ne dañu ñëw jëfandikoo li ñu yenent bi wax ñun dañuy demandé góor jigéen buñ jàpp nañ ko rendi ndax yenent bi loolu la wax man wajatumuhu képp ku ngeen fekk yaamalu muy jëf amala qawmi lutin lu melne la gaayu lut ya doon def ñaari goor yu ngeen bet ñuy jote ñaari goor yu ngeen bet muy jote muy jote faqtulul fa'ila wal mafuula bi ray leen ka nga xamne mom moy ka def ak ka koy def yeb na ngeen leen ray li hadith bu wér la bu kenn mënta dindi yenente bi moko wax sallallahu alayhi wa ki ne ku ngeen fekk muy def lu melni ray ko koku wax na ca wala waxu ca yenent bi dellu waxaan ne bokk na ci li ma gën a tiitloo ci yi ma tiitloo mooy ngeen dem bay def la gaayu luut ya doon def mu ne sama xeet bokk na ci li ma gën a ragalloo li ma gën a tiitloo mu xew sama xeet mooy ñu dem bay def mbirum góor jigéen lii waxu rasulullaahi sallallaahu alayhi wa la ba noppi indi àtte ñoom Abdullah ibn Abbas saxaaba yi seen jamono xam nga lan moo doon àtte ci góor jigéen buñ jàppoon taal jamonoy saxaaba yi jàpp nañu ay góor jigéen taal leen comme ni ñuy taalee mat atte bi ñenn ñi ne mooy nga jël leen yéegal leen ba ci étage ba gën a kawe nga juutal leen ci suuf ñenn ñi ne mooy nga jël ay xeer di leen ko joor comme ne leen yàlla mbugalee woon lii mi ngi ci téere sariya yi ñu teg ñan la wax ñan ñay ànd di jote jëmmi niru niru lu góor jigéen tamit beneen àtte la am ci diine mooy solo ni ñuy soloo mel nañuy mele yenent bi sallallahu alayhi wa moo ne rëbb na bépp góor sunu boroom rëbb na bépp góor guy jigéen jigéenlu ak jigéen juy góor góorlu maanaam lislaam dafa bëgg góor na góoree comme ni ñu koy waxee tey jigéen tamit na jigéene jëmmi jëf ji ànd ji moom pen moo ciy tegu jëmmi niru niru lu leen rëbbum yàlla moo ci tegu te ñaar yi yëpp nag lañ wax ne warul am ci société am na tam leen lu ma dégg ci kàddu yi mooy ndax yéen da ngeen visé ñi nga góor yi nga xam te ni dañoo jigéene par exemple góor bu efféminé ndax yéen ñooñu dafa bokk si ñi ngeen visé. non xam nga ruubekat yi dañuy ruube rek xam nga waaw bu fekkee indi nañ luwaa ki nga xam ne ni moom dafa juddu jigéen mais luwaa bi tudduñ ci ñooñu tudd nañ ay cas force majeure xaw ma noonu lañ ko tuddee ci. cas de force force majeure noonu lañ ko tuddee ci loi bi maanaam bi ñu limee LGBT ak tur ba mu jeex attekat bi moom ci terme loi ak droit yi mu jàng. Mm-hmm. jox nañ ko benn baat boo xam ne moom buñ ko indilee kuñ ko indil dana xam ne kii kat kum war a teg daan la wala kum ko war sa teg la loolu ñuy tëgg luwaa seen xam-xam màcc na ci ba sóoraale nañ ko ki nga xam ne moo juddu euh, yaramam jigéen mais dañ ko doon yar ngóor jigéen na kenn du ko du judduwaale góor gu juddu ni da bëgg di ànd ak moromi góoram loolu moom amul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne kullu mawludin yuladu ala alfitra kenn judduwaalewul lu bon hmm. te ngóor jigéen lu bon la kon li ñaan dafa am ñu koy judduwaale non am na ñuy judduwaale nag seen cër nekk ñaari cër loolu nguunu ngaana la xunsa sharia xam na ko jox na ko àtte ci miraas ba ci ndax day jiiteeg du jiite sharia jàngale na ko mooy xunsa mooy ku yor ñaari cër cëru góor ak cëru jigéen sharia ci miraas àtte na ko ci wàllu imaama àtte na ko kooku ku nu xam la kooku jotewul dara ak ngóor jigéen mm-hmm. ki nga xam ne judd na cër yi mel ni mel dañ koy yar mag ñi loolu yàggoon na fi ñu fexe yar la ba sa cër yi nga dellu si booy wax wax ju xaw a jigéen ñu ne la waxal wax ju dëgër góor day wax wax ju dëgër sooy dem di toog ci biir jigéen ña di leen fréquenter ñu ne la hé góor ca góor ña jigéen ña ca jigéen ña loolu bokkul ak dara ak li nga xam ne moom la ñuy wax beneen bi balaa ma koo fàtte mooy wax ji dikk ci wax aji wax ji sama maam joojo nee na <laughs> mooy li wax ne waaw euh, yàlla daal li mu tere mooy njaaloo bi nga xam ne nii ànd ak jigéen jigéen ànd ak góor yooyu leer la yàlla tere na ko mais am na yoo xam ne nii dañ cee mos a noppi maanaam mbirum góor jigéen dañ cee mos a noppi kon dañ cee ba ci mag ñi woon ci réew mi mu cité ñu bari ne dañoo mos a noppi ci ngóor jigéen tudd naa ñaar ñoo xam ne buñ ci waxoon doy na jarul ñuy ñëw ci mag ñi muy yàllaa kub yenentam point ndax ida tanazatum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul bu amee lu ngeen di xëccoo yàllaa kub yenentam ñooy àtte mais ñii seen wax dafay firi rek wax yooyu moo tax ñuy indi sax seen wax mën nga tudd mag ñi ci réew mi te sa demul ci ñaar Sëriñ Tuubaa ak Alaaji ndax mën na nekk ñoom ñaar ñëpp kaay ma wax la luñ bind ci ngóor jigéen Cheikh xaj Hadj Malick téereem bi mi ngi tudd faakihatu tullaab ci tariqa tijaan lay jàngale lawraade gi ni mel dafa dem ba ci biir mu am benn chapitre boo xam day wax ci liy wowal xol Cheikh Ahmad Tidiane wax ko ci jawaahirul maani mu woyaat ko fii bi mu waxee loolu bay jeex bay jeexal daf ne fal nat baadaha ma atal ibrisu an qutbihi alladi lahu tabrisu munqatian anil ilahi l abdu bi fi'lihi walil ilahi alhamdu dane maa ngi cité gannaaw bi mu waxee yi wowal xol loo xam ne borom ibris muy ibnul mubarak moo ko nettali jëlee ko ci kilifaam ga muy Cheikh Abdoul Aziz Dabakh mi ñu tuddee Alaaji Abdu marocain la nitu yàlla bu mag la mi ngi nekkoon Maroc borom cër la sa bis mara bi ka layam ci njàng yàlla defal ko fatu kaamil bi loo ko ci wax mu firil la ko ci bir téré bobu talibé bi diko laaj daf ko sitel ay mbir yo xamné boko défé da ngay déconnecter sa digënté ak sa borom so amone relation yàlla relation ba yakuna Cheikh Al Hadj Malick di lim diko lim diko lim ba ci bir mune ne fu wa kazaka darbu li mar'atin atin lam yëkku min ha min ha zën bu yii dafay ci yàlla moy lan ak ngóor jigéen alliwaat ak dor sa soxna su deful dara day tax sa relation yàlla yàqu liwaat la jëfandikoo fii seexal xaj Hadj beneen téere bi sëriñ tubaab moo ko bind mu layinu suduur la ko tuddee luy nooyal dënn maanaam luy nooyal xol luy raxas xol dafay indi ay chapitre ba indi chapitre boo xam ne ci kabaayir lay wax maanaam bàkkaar yu mag yi mm-hmm. bàkkaar yu mag yi lay site mu nekk di ko détaillé bàkkaar yu mag yi cër yi juróom-ñaar ak bu ne bi mu ciy participé bëtëg ak làmmiñ ak loxoog ba yegg si ci pëy mu ne pëy ñaar lay def ci bàkkaar yu mag yi ma ma jàng bayit bi soog di ko firi dane zinan liwaatun bi furujihim faqat xussaa fa man maala ilayhima saqat mu ne pëy sexe ñaar lay def ci bàkkaar yooyu mooy njaaloo ak ngóor jigéen mu ne ñaar yooyu ku koy defandi ku koy def mu ne daanu nga sa digganteeg sa borom sa digganteeg sa borom bu fekkoon tabax la kon màbbu na waa léegi ñaar ñii lii ñu bind ndax moom la ñuy gëm wala waxu aji wax ji moom la ñuy gëm mais bu fekkoon ñoom waxuñ ci dara ndax dañoo mën a jeexal lépp mën na am yeneen yuñ nekkoon di ko jàngale ba loolu fàbbi leen mais téere bi nga xam ne suba ngoon bukuratan wa asilan ñu ngi koy jàng téere bi saar bi nga xam ne nii moom lay saar yi wala aay yi muy terate ngóor jigéen euh, ay vingtaine la vingtaine u aaya ci alxuraan mooy ñëw di ko ŋàññi kon am na wax yoo xam ne nii defe naa waxu ku euh, bëgg a wax la waaye nag du wax euh, du yi bette li ma waxoon nag laay daanelee mooy nag yenn combat boo ci nekkee am na ñoo xam ne buñ ci àndee moom moo lay tiital waaye am na ñoo xam ne buñ ci àndul franchement da ngay bég da kontaan xam ne lii nga xam ne moom nga nekk di ko def lu am valeur la te du am njëriñ la moo tax ñu am valeur ñëpp a ci ànd waaye nag ku jaar ca weneen yoon wa ñeneen ña jaar ca weneen yoon wa rek nga mën a àndal ala kulli xaal ànd sàmm jikko yi ñoo fi nekk ak ànd yàq jikko yi yàlla ñu bokk na ci ànd sàmm jikko yi